لك دار السلام رب وطوبى ليكن رب فيما سعدوني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñuy seetaan ak ñuy teewlu fu waaye maa nekk ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di nuyoo leen leen nuyu nuyu islaam te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bu ngeen gisee jataay bii nag fii ci Guédé Bousso ci kër al imaam al akbar bu Mouhamadul Mamoun Bousso ibnu Cheikh Mouhamad Mouhamadou Bousso ibnu Sëriñ Mbacke Bousso Sëriñ mi nga xamante ne nii moom lañ nekk këram ni tey jii eh, di siyaar nag jiital ci siyaar bi Sayyid Muntaqa xafisahullah wa wa ayyadahu di ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala at taayid amaana wa tuulal umr bi xaadim rasul waaye tamit di nuyu xalifa sëriñ Mbacke Bousso bi nga xam ne mooy sëriñ Omar Bousso nga xam ne mooy borom dëkk bi waaye tamit di siyaar suñu kilifa gii di sëñ Mouhamed Mamoun Bousso mi nga xam ne moom lañu bëgg a àndal jataay bu am solo bi nga xamante ne nii li ko waral du leen lu may rek euh, loolu yi nga xamante ni jublu nañ ko muy màggalu Daaru Salaam su ko defee nag suñu mag ñu baax ñoo ñi nga xamante ni ñoo fi nekkoon amoon ay relation yu am solo yoo xamante ni yu jar a jàngat la ndax ndaw ñu war koo mën a jariñoo taxoon ñoom ñu ñëwoon fi sàkku woon ñu doon sàkku ci sëriñ bi nag mu defal ñu ay seede leeralal ñu seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaari kilifa yooyu di maam Cheikh Anta Gaawaan ak sëriñ Mbacke Bousso ci li nga xamante ni doxoon na seen diggante ci ay kóllëre waaye ci ay rafet rafet yoo xamante ni doxoon na seen diggante muy tem boo xam ne xamaa ne sëñ bi dana ci ñëwal waaye njëkk mu ñëwal tamit dañu koy ubbil rek ndax mu mën ñoo jariñ ci xisa yu am solo yi nga xamante ni mbokk yi dañ ko jëriñoo ñu ànd koog ñi nga xamante ni ñoo ñëw nag di def émission bi di leen sant leen gërëm waaye kon ci njëkk rek eh, dañuy wax ni sëñ bi dañuy wax ni dafa mel ni am na ab relation bu am solo boo xamante ne nii digganteeg cofeel la ak mbokkoo ca diine lal ko boo xamante ni doxoon na diggante ñaari seex seex yu mag yooyu di maam Cheikh Anta Gaawaan ak eh, Serigne Mbacke Bousso. ndax itam ku ne xam na ni leen boole ak mbokk la waaye diine la waaye ni ñu bokk yaroo ci keroog seexul xadim la loolu doy na sëkk ab rabita boo xam ne moo leen boole ginnaaw bi nga xam ne rabital islam yi bi moom moo leen boole te mooy diine ji waaye dafa mel ni loolu euh, dëggal nañ ko lool ñu nekk ay exemple yoo xamante ne nii maanaam ndaw ñi war nañ ko mën a jariñoo ci kóllëre waaye ci mbokkoo waaye tamit ci ànd ànd bu rafet liggéeyal yàlla su wa waaye xidmatul xadim tamit liggéeyal seexul xadim yi nga xamante ne nii tool bu riche la fi bàyyi boo xamante ne nii ku ne mën na caa jariñu ñoom ñaar ñu nekk exemple boo xam ne na sa ci xayi la li sadaaqa wal mahabba wa tahaawun al birri wa taqwa ndax itam li nga xam ne sëñ bi dinañu ko indil dina leeral loolu su ko defee nag dafa mel ni am na ay jikko yu rafet yu sell yu yu yu yoo xamante ni yu la yoo xamante ne nii maam Cheikh Gaawaan da ko ak koowaam comme li nga xamante ne nii sëriñ Mbàkke tamit noonu la meloon waaye sëriñ Mbàkke tamit dafa jël jikko yooyu tax mu teg maam Cheikh Anta fu kawe bëgg ko lool ndax li mu gisoon ci moom ay jikko yu rafet ak li nga xamante ni moom la nekkoon nekk woon ci mbaax ak ak naful xalq gi nekkee woon di jëriñ bindee fi loolu moo tax tamit day mel ni sëriñ Mbàkke loolu wane na ko ci bind bind mu leer moo xam ne sëñ bi ñu dikkal muy ay jikko yoo xamante ni ak seede yu rafet rafet rafet yoo xamante ne sëriñ Mbàkke radiallahu anhu seedeel na ko moom Cheikh Anta Gaawaan mu tudd ko bu baax a baax euh, tudd ko ci téere boobu ñuy wax lisaanul xaq muy ab leetar boo xamante ne nii risaala maftuuxa lañ ko mën a tuddee muy leetar boo xam ne bu ubbeeku la boo xam ne càmbar na ci yu baree baree bare ci li nga xamante ne nii dana xew fi ci Sénégal waaye ak waa ñi nga xam ne ñoo yoroon réew mi muy risaala boo xamante ni ko euh, maanaam askanale woon ci maanaam Ngalandou Diouf ak yu mel noonu. mu nekkoon di risaala boo xamante ni nag li tax mu ko doon def am na ci parti boo xam ne parti bu guddi la boo xam ne lu ci bari da cee tudd maam Cheikh Anta euh, ci leeral ay jikkoom da ci leeral natt boobu nga xam ne moom lañ ko nattoo woon na mu demee ak la xam ne mu tuuma ca xew lépp mu leeral ko ci leeral bu am solo boo xamante ne nii boole ci tamit am lu mu dig maam Cheikh ci ay nasr ak ndimbal ak sant boo xamante war na ko sant xéewal yi xam naa ne bi dina ñëw du ma ci xóotal loolu. waaye kon dafa mel ni am na ay jikko ak seede yu rafet yoo xam ne seedeel na ko ci loolu loolu nag ku ne xam na xisa bi ni mu demee ndax eh, mel na ni 1929 ba 1935 am na natt bu daloon boo xamante ne nii yóbbu ko fa ñuy wax Ségou ca nga xamante ni mooy ca léegi la nekk la bokk nii mu nekk fa lu mu toll ak juróom-ñaari at boo xamante ne nii ci nattu la nekkoon loolu yi Sëñ Mbàkke tudd bind na ci bind bu am solo wax ne taarix da ko wane su 1935 la Sëñ Mbàkke bind loolu moom. waaye dafa mel ni am na leen luñ am luñ bokkaatoon tamit lu mel ni aj gi nga xamante ne nii bokk na ci umniyaatu salaas mooy ñetti mbébét yi nga xam ne Serigne Touba radiyallahu anhu da ko bébétoon si sëñ Mbàkke bind ko ci texte bu leer fii ma axlam la la wax li ma xam ci li fi sëñ bi bàyyi ci mbébét ñett la na ñett yooyu bokk na ci aj gi bokk na ci tamit jaamix boo xamante ne nii day nekk balluwaayu xam ci Sénégal ñëpp ñi fi jàng si yaakaar naa loolu sëñ bi da ci ñëw bu baax a baax ak itam ni mu taxqiqa fi yadil xalifa li tariqa muridiya euh, Cheikh Mountakha fi soxla waraxa xëy na omniya bi mu ngi fi woon waaye taxqiq bi dëgg-dëgg daa mel ci loxeel sëñ Mountakha la amee su ko defee nag loolu tamit nekkoon na ci mbébét yi waaye comme ni nga xamante ne nii tamit taxawal jumaa joo xamante ne nii jumaa ju mag lay doon ak ni ko sëñ bëggee woon ak texte bu rafet bi sëñ Mbàkke bind ak ni mu ko waxee loolu lépp sëñ bi dañ ci ñëwal kéemtulaay kattan ci waxtu wi su ko defee tamit daa mel ni daal amoon na ak cofeel gu am solo goo xam ne doxoon na seen diggante ndax booy xool tax ci njaboot gi am na ñaari kilifa yoo xamante ni nii ci njabootu Maam Cheikh Anta wax dëgg yàlla tudde nañ leen suñu Mbàkke Buso muy suñu as tàkku suñu as ak sëñ Abo Albaraka te ba daa mel ni xista bu ci nekk rek am na lu muy wane ndax bu dee bu njëkk bu njëkk tudd muy suñu as dafa mel ni nañ ko tuddee ak na ko suñu Mbàkke tuddee bopp tuddee boppam wane na ni amul frontière ci kanam Maam Cheikh ndax ba mu ñëwee wax nañ ni xam na dafa ñëw mu jël ko leew ko tudd ko tudde ko boppam loolu day wane ni cër boo xam ne amoon na ko ca maam Cheikh Anta ca maam Cheikh Anta bàyyee ko bi lool tamit mu am fa sañ-sañ lool lu mel ni sëñ Abul Baraka ma xam ne la daa fekk mu doog a dem ak ñu mel noonu xam naa comme ni ñu ko waxee mu ñu tuddee ko ko loolu lépp mi day mel ni rek euh, day wane rek maanaam euh, kóolare goo xam ne dox na seen diggante. kon rek xam naa ginnaaw bi nga déggee lii moo la wax nii rek xëy na loo ñu ci mën a andil rek ñu njëkkee kon ma des sadaaqa wal mahabba baynahuma bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin bi alihi wa sahbihi wasallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bokk yi fi teew sëriñ sëriñ ak njaboot gi fi teew ñoom ñëpp ñu doom jarbaat lépp ak yow mi di sun rakk sun dombate di leen euh, nuyu ci turu jabootu sëñ Mbàkke Buso gépp te sëñ Omar Buso ne ci bopp bi di leen sant ci seen teewaay bi nga xam ne teewaay bu ama am solo la xam naa li nga xam ne moom loxo li ëmb sax wax ji du ko mën a génn dëgg dëgg sunu lamiñ lépp waaye ko gis ñu wax rek bay boo xam ne li ñuy wax lu lu dëggu ci noonu lu ñu gëm la te luñ topp ay jeexatam la ba am fuñ sukk fuñ ko sukkandikoo ba man sañ koo nettali lu jiitu loolu noo ngi siyaare Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanu yàgg fi te di siyaare sëñ Abo abu muhammad wala abul baraka di ko ñaan mu yàgg fi te wér ñaan njabootu xaadimu rasul gépp ginnaaw loolu nag waxtaan wi nga xam ne moom lañ bëgg a sóobu ci waxtaane maam Seex Anta xëy na man mi koy waxtaane tuuti naa ci ci la ci lamb lépp ma war ko wax waaye lu ma ci wax rek koy sukkandikoo ci mbind loolu yi nga ma njëkk laaj na muy loo xam ne relation yi dox seen diggante ak cofeel gi loolu dégg nañ ci nettali yu bare bare bare sëñ sëñ sëñ Mbàkke daw toog lu mat ndàng mi bis te seetiwut ma si maam Cheikh Anta doo toog lu lu lu mat nangami bis te ñëw te ñëwut seet sëñ fii ci gërëm moo tax na maa ngi dégg sax am nettali boo xam ne dañoo wax ne sëñ bi masa jóge Daaru Salaam di jëm si sëñ Mbàkke bu ñëwee ba ci penku jumaa ji ba tolloog fi sëñ bi ne da ko laaj bañ ko ne tolloo na tolloo nañu ak moom mu daal wax safoor bi ni ko ubbil oto bi wëlbati oto bi ba mu jubloog barab bi mu wëlbati ko ba ma jubloog barab bi mu daal di ko daal di ko ne ubbil bunt bi mu ubbi ko mu daal ko génneel tànk bi teg ko fi suuf mu summi dàll yi fab dàll yi fab tànk bi teg ko fi suuf tax na jamono yooyu maam Cheikh Anta di jóg di man dem di fekkenteeg sëñ Mbàkke Buso xam naa bu tegalee quarante quarante lu néew lay tegal ndax sax moom sax du quarante la fi jóge quarante et un nga xam nga mille neuf cent quarante et boo xoolee ni Touba meloon mm, ci liggéey bi ñuy liggéey jumaa ji mu toll foofu ak dëkk bi ni nga xam ne la mel ci aw melo ci xeeti garab ak ñax ak bant ak xeet yooyu buñ dikkee ba toll ak sëñ bi danaa waa ji génneel sama tegal ma ko ci suuf mu daal di summi dàll bi daal di fa tànk maam teg suuf mun fa tegg lu yàgg moom ko yëkkati mu yëkkati mu daal dugal ci dàll bi ko addoy ah, na di nga xam kooku positif bi nga fi la toll ci sëñ Tuubaa kenn xamul <sighs> seen diggante nag <coughs> am na xese bu yu bari la sax waaye am na xese bi nga xam ne moo ci gën a uh, feetoog wàllu wàllu baatin bokk nañu fanaan tim néeg ñoom ñaar mu jullee gee ba noppi ba mu def ay naafila moom daal di tëdd sëñ Mbàkke jóg di naafila di naafila di naafila maam ant geesoo rek gis ko mu taxaw ba mu yàgg bu ne ko Mbàkke tëddal noppalu dooma jëkk àjjana dooma jëkk àjjana xam kii ngi dem quarante et un dem quarante six mooy maa la fi njëkk a rek ndax ñoom ku ci jógee ku fi jógee àjjana ngay wutali mm-hmm. ma ne ko tëddal noppalu doo ma njëkk a àjjana de waaw mm-hmm. fab na it doomam jox ko mm-hmm. te it ay teraangaam ak ay xeewalam daawut jóg ci sëñ Mbakke ba mu yëkkati doomam jum jur jox ko muy soxna Mariama Mbakke ay sët ba ngi fi xam xam nañu leen ñun ñi nga ñoo bokk ñoom xam nañu leen ñun ñëpp xanaa dama ci tudd Abo Moussa may nekk Ndakaaru rek ndax way juróom sëñ Moussa Bousso moom la soxna Mariam jur moom la am ak sëñ Mbacke relation nag bu ci gën a diis boobu xamu euh, seen diggante it tuddante gi ak seq gi ñu seq ci wàllu njëboot gi bari na bari goo xam ne gi mënees koo lim xanaa dañ ci tudd benn boo xam ne bii rek musaayir la ñëpp koy gis wala ñaar ndax kooku ñaax sa ñaas gële eh, bi mu feeñee jamono suñ mbokk ñëw ci bisub juróom-ñetteelu fanam wala juróom-ñaareelu fanam biñ dikkee suñ mbàkke da koo fab teg ci kawam tuddi ko boppam amul lu mu ciy si ante dara da koo teg ci kawam rek ko boppam muy science gi doom yaa ngi feeg sëti loolu sax moo ma ko nettali boppam sëñ Mbàkke ma tudd tudd ma boppam moom wax na ma ko ndax boo ma saagis gis la may wax moo ko ma saa gis ne ko maam ndax dañ ko tudde sëñ Mbàkke bu so muy sama ma sëñ muy bàyyam moom moom daa wax la ca toppit sëñ Abo Mouhamed mii nga xam ne moo fi nekk yàlla na fi yàgg te wér jiite njabootu kër sëñ gaawaan gi ak sëñ Modou Mamoun sëñ Mbakke bu sol la ko sëñ Modou Mamoun tudde moo tax ñu naa ko Abou Mouhamed Mouhamed moom ñu koy e dakkantale mooy taawu sëñ Mbakke bu lu bari li ñu sukkandiku ci sëñ Mbakke tarjumaan ji mu ko bindal ci li ñu bari sukkandiku. mooy sëñ Moodu seen nga xam ne boo ko toppee daal uh, man naa jël émission bi mm-hmm. te daam yeneen yoo xam ne yi war nañ koo war koo tudd kon ñu doy lool lool rek xam ne Modou Mamoune Bousso ngi fii ci gere mm-hmm. ñu tudd ko sëñ Modou Mamoune mm-hmm. sëñ Abo Mbakke nga fa wee ci Daaru Salaam ñu tudd ko sëñ Mbakke Bousso <laughs> jërëjëf sëñ bi ñoo ngi leen sant bu baax ci leeral yu am solo yi eh, mel na ni cofeel gi moom amul fu mu xam naa émission bi moo xaw a gàtt waaye eh, li nga ci war a tudd bari na lool ndax yow mii rek firnde nga ci ndax di yàlla ndax fu ñu la tuddee ca suñu maamu waaye daa mel ni am na xisa boo xamante ni bëggoon naa nga tudd ko lu mu gàtt gàtt te mooy bi ñu ci bi ñëwee ci suñu asaan soxla ab téere la la ca suñu mbàkkee wax eh, nga gën koo leeral. ndax man dama ñibbisi ci fa ma doon jànge ji rek nekk ci diggante jàngale jàng ak jàngale ba sëñ Saliou jox nu liggéey bi mu ne nag Mudu Maamun moom mi ñu tudde sëñ Mudu Maamun de bëggoon naa ko gis ba xam ni ko sëñ sëñ Mudu Roqaya moo wax loolu que nga xam mat Juuf mm-hmm. dama xaw da ko daa dawalal xaw ma mm-hmm. moo fi dikko wax ma ko ma jur defe naa daan dawalal sëñ Abdou Khadre dikk wax ma ko ne ma sëñ mu roqee da waroon koo seete ndax mi ngi lay laaj rek mhm, da dafay dem bis ànd ak mbokk nañ fa demee nag ñu waxtaan waxtaan wu neex lool mu di waxtaan si gaawaan si mbokk bi waxtaan wu neex ba agsi ci téere boo xam bii dafay dugganti sëñ Mbàkke bëgg koo jàng ci moom mbaa mu jàng ko ci sëñ Asan bu sumi jàng la moom dikkee wax ci ak sëñ Mbàkke ba noppi sëñ Mbàkke wax sëñ mu toppatoo téere bi ngir jox ko ko mu mën a jàng téere boobu nga xam ne moo ko tax a jóg xam nga daa daa jàng ba nga xam ne rek di ko dese ci wàllu téere yi ñu jàng bëreetut mu timmaat yi la bokk mu timmaatul fa noonu yi ba mu dikkee nag sëñ ñu yabal ko ko benn boo xam ne bii moom la si suñ mbàkke wax ko ko moom suñ mu roqee dellu si suñ mbàkke mm-hmm. ko moom dafay mel ne am na fa sax waaye benn rek la te mbooloo ko seq di ci jàng mu di leen ci jàngal hmm. sëñ Asan wo sëñ sëñ dikk mu ne ko te loolu lii mu du soxla mu du roqee noo mën a def na ko am ndax lëf li ci si la bokk Cheikh Anta la bokk. daal jooy. moom si moom doxee. fab kaal gi teg ci bët yi. du yàgg. bañ ca noppee nag la ma la woo waa kan ab bëkk néegu moom nangam kan. daal di yóbbu ko ca néeg Cheikh Anta boobee ca néegu boppam ba ca sowu. dalal ko fa. Ah, te fekk ko fa ak yéen ko fa war a fekk. déedéet ca Darou Salaam. Darou Salaam sëñ bi ma waxee moom baagal ba xaal bi dikkal ko ba xaal bi dal. lawoo diw kan xam naa yéen ñëpp da ngeen ko xam ngoog xam naa ab bëkk ne ko woon ne ma yóbbu ne ko yóbbu ma ca néew boobu muy néeg saxante ba ca pavé ma dalal ma yenn ne loolu lañ ciy dégg rek mooy mag ñi seen bëgg ngoog. macha allah la si la bu leer la kon <laughs> loo xam ne suñu bàkkee ko wax. loolu am na solo lool sëñ bi kon xam naa dafa mel ni ngir ñu dugg nag ci thème bi dëgg-dëgg lubbul mawduu mooy mi jikko yu rafet yi yi nga xam ne dafa nekkoon ci maam Cheikh Anta te sëñ Mbàkke ku ne xam na ak euh, ragal am ak sàmmoom ak xam ak fi mu toll ci wàllu ragal yàlla yu mel noonu yaakaar naa du see seedeel nit dara loo xam ne nekkul ci moom euh, kon bi muy seedeel maam Cheikh Anta seedeel rafet yooyu ci lisaanul xaq ca mu ngi ko bindal 1935. nga xam naa ci tënk rek jikko yooyu noonu yan la ko sëñ Mbàkke seedeel ba nga xamante ne ndaw ñi des na ko mën a jariñoo ndax yaroy waay lañ. sëñ Mbàkke daa bind moo xam ne mii lisa téere kii boo xam ne lisaanul xàq la ko tudde daf ko ci làmmiñu suñu borom nga xam ne li muy wax dafay mel ni suñ borom wax ak yow. Mm-hmm. mu teg jëmmi boppam fee. jël la jël suñu boroom mu yor kàddu gi di wax moo tax ñu ñu tuddi ko lisaanul xaq ca la doon waxe di seere ci maam Cheikh ci melo yi nga xam ne mi ngi ci moom natt yi nga xam ne dal na ko digg mag tubaab bi dañ yóbbu ko fañ ko yóbbu ba mu am fa am waaye sëñ Mbàkke nag dikk ne damay seere Seex Anta moom daal ne ndax ni ma waxee ne ci làmmiñu suñu borom lay waxee mu daal ne ala ma xalaqtahu alayhi min salaamati sadri wa riqati alqalbi wa xuluwi albaali wa xawaltuhu ma xawaltuhu wa jabaltuhu ala al infaaqi mimma razaqtuhu yaminan wa shimalan laylan wa naharan laa yumayizu fi dalika sadiqan han haduwin wala qariban min baidin li annahu majbulun ala dalika laa kasba lahu fihi ne yow ma man sama borom mm-hmm. ma bind Cheikh Anta mii mm-hmm. bind ko muy ko set wicc ku laa xol ma def ko muy ko woyee foofu xol te leer la ko mm-hmm. te loolu bëgg ko Sëñ Tuubaa bëgg ba wax ca bëgg googee ay saare loola rek lay firndeel Ah, yu ci bari ñu ci bari dégg nañ ko te ku féex la ci am xelam jàppalul kenn dara may naa ko man yàlla li ma ko may faram kon yu bari la wa jabaltu alal binde naa ko muy kuy joxe alalam di dundle dañ ne sëñ Tuubaa nee na ci moom Cheikh yow mm, sa pajogu aajo ñu ngi ci joxe ndab alal infaq mu nag kon yàlla moom mi bind moo ko binda noon ndey joor ak càmmoñ guddeeg bëccëg lépp fu toll ter la rek la dëkk laa yumayizu fi dalika sadiqan min aduwin xàmmewul ku ko bëgg ku ko bañ ci li muy def ak li muy joxe ak ak teraanga yu bari ak njëriñ yu bari yi maam xàmmewu ci xàmmewu ci ab soppe akum noonu wala xariban min baidin jege ñaale wala ku ko sore ñoo ci yem ku dikk rek dugg ci biir teraangam am ca la nga ca war a am ba mat sikk ndax li annahu majbulun ala zalika yàlla ko ko binde do ko kono du du du max muktasab yàlla ko ni binde laa kasba woo fii nee ay xaritam buñ ko jikkee woon nee ay noonam ah daaw nooni ab xaritam mu ko jaaroon ci wet gi nga xam ne fii la ko ay soppeem di jaar buñ dikkee ba ci moom la muy defal soppee ñoom moom lay defal noonu ya fa jara taxaw la <laughs> waaw dafa mel ni xaritam boobu di nga xam ne mooy mooy ngalanu mm-hmm. maanaam ay noonam sax nooni xarit bi sax waaw bu ñëwoon ci ci maam Cheikh Anta mm-hmm. sàkkoo yërëmtuloo na na nga leen defoon. <coughs> dina leen defal loo xamante ne nii moo ëpp la mu defal nga. la dëgg bëgg a firndeel ni ko rek. bind la ci moom. waaw day parpar ah. mu daal ne ci lisaanul xaq. Mm. nga xam ne yàlla ay wax. Mm. mu ne ko xamuma ci moom diiru ba ma ko bindee. léegi si hmm. lu dul aw hmm. lu dul ak sell hmm. lu ak baax kon nag faskur lii yow Cheikh sant ma ci muñ ci li nga xam ne moom la ñu wax ci yow fi sukuru ni'mati te nga xam ne lépp lu ñu wax ci yow rek te demul ni mu war a demee man yàlla ko wax génn naa ci moom jotee tubaab ñoom dara ndax foo ne rek maa ngi fi sawet man mi la bind fa inni ma sabirin muñ googu ma la ko muñ loo nag da xam ne man maa ngi ànd ak way muñi wala najzi anna alladina sabaru bima amilu wala najzi annahum ajrum bi ahsani alladi kaanu di seere yoo xam ni daal bari na bare boo xam ne kii rafet rafet boo xam ne ku toll ni jëmmi sëñ Mbàkke di ko seere ci maam Seex Anta di kenn ci borom Tuubaa daa mel tamit am eh, seen ànd ci aj gaag yu mel noonu loolu ak nam nam ko dikkee woon ak la ci sëñ Fallou wax ak yu mel noonu. mbirum aj googu. sëñ Mbàkke Buso daa bind wax ne. xawma ci sëñ bi. mébéti àdduna yu mu fi bàyyi. yoo xam ne jotu koo def. lu dul yet. jumaa ji nga xam ne yàlla may na ko ko. ba muy wax ak njabootam gi mu doon waxal tànn leen sama jumaa ji na ko tabax hmm. ba mel ni mu war a mel ndax yàlla won na ma ni muy mel bu ma sooboon ma génne ceeb yi ceeb yi won leen ko waaye nag même xam naa ne gëm gëm li ma wax rek mm. loo loolu jarul jarul jarul génn jumaa jooji nag sëñ bi naal na ko ba wax ko ba sant ko ay doomam yi mu ko sant Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Fadilu ak ñi ñu àndal sëñ ñu mii ci boppam man moom wax ne ma ba sëñ bii wax ak ñoom loolu maa ngi fi maa ngi toog damay lu tuuti bañ jàpp ne li ñuy wax xawma ko mbaa jàpp ma ko moom nee na sëñ Bakki bu suuf moom ba mu waxee ñoom ko ne Mbàkke mu ne ko Mbàkke mu ne ko nag jubale xibla te bu àggee nga jiite ko nga di ko jiite loolu ay riwaay yoo xam ne moom lu wér lu sax la hmm. benn mébét baa ngoog muy jumaa ji la ca topp mooy dem màkka niseroon na ko naal ko wax ko am na sax ay eh, kilifa yu màgg yoo xam ne waxoon naa ñoom ci ne bu ne leen may dem Màkka nooy ànd suñ mbokk bi suñu ca bokk ndax wax nañ ne bañ demee ba ca ba ba ca bërëbu yonent bi bokk na ci ko sëñ Tuubaa waxoon buñ demee ba foofa danaa fa jàng xasida sangam bañ dee ba àgg fa ba toog suñ fal mi nga xam kenn xamul lu doon yëkkati xasida suñ mbakke na ko yaay suñ Tuubaa daanu loolu di àgg gi. suñ maam Cheikh Anta mi ñuy waxtaane mm-hmm. ànd ak suñ fallu ak suñ mbakke. ñu mo ñoo ko mottali yéen a ak ñeneen seeni njaboot ñoom itam ba ko ñetteel mooy madrasatun takunu rexlatu ah, rexlatu nu ko suñ Mbakke waxe ah, na ko suñ Mbakke mooy daara joo xam ne ji biir Sénégal dama ko jël bitib Sénégal dañ fay jógee dikk di ko di fi xam la si nga xam ne waajaloon na ko ay téere nga xam ne ngoog yu bare bare bare bare mm, bi fi jógee nag mm, fa ko tegale woon nee ñu mooy teen bii ci caanu Sëñ Xaadir bi te eh, téere ya dafa nekk ba maxe fa ko di faw dooñ la ñu di ko duppi ko ab teen téere yu gàññeeru la gis naa laa tojjoo doxi ndax mu ngoog wax ko fii damaa gisu tolluwaay boobu man koo jàng sax waaye wutal la ko yoo xam ne laa tojjoo doxi ndax xayri yi mu ngoog foofu de xanaa dama ci mën a laajaat rek mhm. tamit mhm. daa mel ni ci wàllu xam-xam mhm. daana moolal sëñ bi lu bëree bëri ay téere yoo xamante ne nii moom ci ay nafaxaat googu nga xam ne moom la ko sëñ bi digaloon tisaare na lu bëree bëri ci wàllu xam-xam bu ji mool moo koy yóbbu foofu mool ko hmm, lu ba bari la ba ci Masaalikul Jinaan bi moo ko njëkk a moolee tinis xaw daal hmm, la ca topp ci waaw ah, waaw bu ñetteel boobu mooy daara ji daara jooju nag moom wax na ci biir wax ji dama gisul fu mu mu waxal ko boppam daal di boo naalee dem Makka te defa goo ko naal jumaa te tabaxa goo ko doo mën a wax ci daara dara ndax daara daa topp yaay yaar ndax daara day topp jumaa moo waral Sëñ Tuubaa daraam du du asar biñ dikkee ba Blaat moo daal di dagg foofu yi nga xam ne mooy université bi mu mën ko ah, miir ko mm-hmm. mu wàgg mu daara ji Sëñ Tuubaa doon naa la ngoogu ka ko war a tabax dana ñëw waaw loolu si loolu am laa waxoon bi mu si si si si Muntaxa mm-hmm. ko yàlla yàggal ko fi te wéral ko moo ko daal di song liggéey ko ba mel ni mu mel mm-hmm. ah, te it taxawagut day yokk di dem ndax fu ci benn étage mën naa dem ba doon ñett ba ñeent jëm ci kaw. kon dafa maa ci tënk rek bi. nga xam ne moom mooy dépensé bi nga xam ne moom mooy mbiram rek daa feeñ na ci aj gi feeñ ci téere Sëñ Tuubaa yi feeñ ci lépp rek feeñ feeñ ci kilifa yu bëree bëri yaakaar naa sax maanaam suñu bàgg seedeel na ko lu mel noonu ni moom gisuma ku dàq daq mi dee fi ci jëmm ji waaw bi mu nelawee noonu te suñu ni moo ko taxawee ci wàllu miraas miraas ko waaw. dañoo wax ne Sëñ Fall daf ne maa garanti bu ñuy dem ba ba ñuy dikk kenn du wopp kenn du faatu sëñ Fall la ko garanti maam Cheikh Anta ne bi ñu jógee fii ba ñuy dellu si lu lu ñu warlu te soxla ko maa koy def wàllu dépense waaw koy def sëñ bu sëntaat ni moom itam lu ñu fi soxla lu ñuul mm-hmm. ma ko laaj naa aj gu waaw. xam nga aj gi eh, ñoom te la baax ñu bari dañ koy laaj ñoom boobu aju ajaguñu ajug islaam te bu fekkee da ngeen ne sëñ Tuubaa lañ doon ajal loolu ci wàllu fiq sëñ bi xam na li may wax loolu day xaw a yéeme waaye sëñ Mbàkke leeral na loolu wane na ni ñoom bi ñuy dem dañoo xam ne bëgg-bëgg sëñ bi amoon na ca ngi naa ak njabootam a ngi ci yéene ji maanaam yàlla mën naa royaatal ba àgg ca sëñ bi loo loolu lu jar a leeral la lu jar leeral la loo xam ne mel na sëñ Mbàkke bi la moom leeral na ko leeral na cause bi tax sabab bi taxoon njabootu sëñ bi ànd ci aj gi ndax dañuy doom ju baax maanaam bu bu bu defee ak mbaax day royaatal ba àgg te waajur wa loolu lool la sëñ Mbàkke wax ci aj gi xam kon daal ci kàddu yu mujj yi rek looy dénk njaboot gi ci jikko yu rafet yi nga xamante ni maam Cheikh Anta woon na ko ca sëriñ Touba ca sëñ Mbacke Bousso seereel ko ko yaakaar naa mas tënkoon nañ ko ci tomb yii rek mooy juróomi tomb yi nga xam ni mooy dënd bu mucc lool ci ay ayib ak xol bu rafet ak ñàkk maanaam euh, jàppal kenn dara ak dépenser ak jariñ ñëpp waaye ci biir loolu te sëñ Mbacke tamit laabire na ko ay laabire ni kon na nga sax ci sant ak muñ te xam nga ni yàlla àtte na la ak say noon ci nga na nga taxawal jaamu yàlla sa biir kër te wakiilu ci yàlla te xam ne li des moom bàyyi ko sama loxo man yàlla kon xam loo ñuy dénk rek ñun njaboot gi mën na jariñoo ñëw Cheikh te suñ bakki bi soo wax ko ci nee ñu dafa wax ne ku ma njëkk a wax ne Cheikh ñibbisi na maa la warul laajana maa la warul laajana wax nañ sax ka nga xam mooy jëkk dikk wax ko ko man dama bëri fàtte waaye waxoon nañ lépp. Hmm? ngoob moo dikk ne ko sa waaji ñëw na ñu bisi na ba ma ko déggee nag laa daw ñëw ngir wax la ko ndax dama dégg ñu ne nee woon ku ko njëkk wax ma maa la warul àjjana hmm. mu ne ko maa ko waxoon te naa ko def <laughs> loolu rek doy na sëkk loolu doy sëkk ci ak cofeel ak bëgg ak bëgg ak bëgg waaw suñu mbàkkee ni xamee diine mhm. ni mu mhm. lu mel noonu kon loolu rek baat benn baat boobu na mhm. lii mooy waar wi ndax eh, loolu moo boole woon sëriñ Mbàkke ak maam Cheikh te kon ni leen ci soññ bu baax a baax leen ci gërëm tamit ci jéego yu rafet yi ngeen def ci waajtaay xëy na màggal gi mel noonu yu mel nii day jar di fàttali ndax njaboot gi mën cee royee bu baax a baax a baax ñu sant suñu kilifa gi di sëriñ Mamoun Bousso ci kàddu yu rafet yi ak ci xissa yu am solo yu ñu andil di ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala tawfiix ak barke ak gudd fan ak wér mu jaay xaadim ros. Euh, sëñ Abo it. Hmm, sama wayjur dégg naa dafa amoon ne boo xam ne bu suñu lu dikkee fa la koy dalal. bu fa wax nañ ne bu fa sama baay masaa ñëw masaa ñëw ci nuyu boobee la koy daal ñoom ñaar ñu bokk fa ne seenu jaxasoo dem ba mel noonu yi nga ah, xam nañ fu fu fu kawe xam naa boo demee loolu moo indi turi maa ngi fii dimbalu maa woon sëñ Abo nga fee di sëñ Bakir Bousso waaw nga waaw waaw waaw sëñ eh, sëñ Mourou maa moom it ay baax baaxam mënees na ci lim lu bari waaye mënees na ci jël benn képp rek mottale ko waxtaane nee ñu néeg bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa defaroon ba mu àgg mu def ci mu def ko magasin bi nga xam ne ci li ñuy jëlee xéwal yi di ko joxe kuñ masa war a jox xéwal caabi caabi néeg boobu sëñ bi du la ko jox moom nu yor ko luñ fa war a génn mooy dem ubbi ñu jël ko mu tëjaat am yoon woo xam ne xam nga si mu doon muudu seex lañ ko daa wax dégg naa bi bi ko sëñ bi joxee ndigal ca néeg ba am lu war a dindi dindi di ko di ko joxe bu ne bëri rek daanu bu ne bëri daanu ba mu ñetti yoon ci koo xam ne yaa yor magasin bi ci la xëyal yëpp ne fekk ñu daa ko wax Mourou ne déedéet Mouhamadul Mamoun mu du Mamoun yooyu Sëñ ko ko tudde mm, ci néegi dégg na yore ataay yoo xam ne dafa digg teg ko fa daal ne ko amul bàkkaar na ko xëy wan nañ ginnaaw dem ñuy xoolante ba ma am diir sëñ bi ñëw fa jëfandikoo ngeen ko ñu ne naa nu ko da xaw a jaaxle ndax ñu ko ko amul bakkaar na ko xew mu ne xanaa mu doon néew dañ ci mën a wax bari na waaw ñu ci dégg te doy loo ko mën ko nettali tabaarakallah bari na lool naka daaru salaami rabbi wa tuuba liyakun rabbi fi ma sauduni